Kajoor Pape Malick nuyu naa la. Euh, agent maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi Kajoor Cissé euh, di nuyu waat bépp téléspectateur bu ñu seetaan euh, ce matin. dal leen ak jàmm la revue web Kajoor dañ koy tàmbalee ak ab accident bu nga xamante ni am na démb accident bi nag mu mel ni ñetti nit daal di nañ ci ñàkk seen bakkan. effectivement loole nag mu ngi amee fële ca maanaam pont bu Foire. démb euh, foire nag euh, ñu ñuy wax ne euh, ab bus la busu Tata yoo xam ne mooy ligne 44 yi moom moo doon daw ñàkk frein nag ba mu ñàkkee frein dafa njëkk a mbëkk ab scooter boo xam ne dafa yeboon daanaka ñoom ñaar ñëpp sax ci saasa lañu ñu ñàkk seen bakkan ñàkkum frein gi nag tax muy wëy di daw xël ba mu mujj ci daw boobu muy daw aussi ca la mbëkkaale Euh, beneen nit boo xam ne da doon euh, dox moom euh, moom it mu daal di ñàkk bàkkanam laataam moom muy daw ba mbëkk nag li nga xam ne moom mooy taxi ci la dal di arrêté course am nag chauffeur bi ñu di ñu wax ne gendarmerie bu Foire daf ko dal di teg loxo jamono ji nga xam ne ci la ñu ngi ci la loolu amee ñu daal di ko teg loxo mais ba mu. dawee daw yu métti yi ki mujj ki mu mujj jël daanaka traîné na ko lu toll ci deux cent mètres laata oh. muy yem ci euh, taxi bi loole nag euh, ca peggu foire bi foofee la euh, dal di xewe hmm. mu mel ni mu mel ni ñu préciser rek ne bi muy am aussi journalistes yi demoon ngir mën a def seen liggéey comme nuñ koy defee ci réew yi yëpp yoo xam ne yu yu ñu respecté la Euh, mënuñu ko def parce que dañu leen tere ñu jël ay images dañu leen tere itam ñu kii ba dem nañ sax bay nangu seeni caméra wala di nangu seeni smartphone phone laata ñu leen koy jox euh, mu tee leen rek ñu mën a def seen liggéey comme ni mu waree. ñu wax ci immigration irrégulière mu mel ni ba tey mu ngi woy fii ci Sénégal. effectivement lu toll ci euh, ñaar téeméer ak juróom fukki nit. ñoom ñoo doon jéem mbëkk mi ca Bargny foofu lañ leen daal di euh, tegee loxo ñoom nag euh, patrouilleur haute haute mer bu Nianing bu bokk ci marie nationale moom moo leen daal euh, teg loxo moo yem ci ñoom. ñu doon euh, dem euh, dem géej doon wutali nag fi nga xam ne moom mooy île Canaries euh, ci ay géej côtu dakaroise yi fa lañ leen daal di tegee loxo ñoom ñëpp nag ñu daal di leen jébbal autorité compétente yi maanaam certainement pour àtte lu néew rek laata loolu di am Euh, kuréel gi nga xam ne moom mooy dajale pêcheurs artisanaux yi fii ci Sénégal mooy union nationale des pécheurs artisanaux du Sénégal ñoom ñu ngi doon euh, fësal ci seen page ci seen sit nekk am na gaal goo xam ne euh, dafa paan te mi ngi yeboon lu bëri ci ay ñu doon jéem mbëkk mi. Euh, nee nañu nag euh, mu ngi paane woon booru Fass Boy ak Lompul waaye ba ñuy wax loolu itam préciser ñu ne deux cent cinquante nit ñu nekkoon ci gaal googu. président ki Sall décret yi mu defoon yokk salaire ministre yi mu mel nii ki nga xamante ni moo di président Diomaye daal dina koy annuler. waaw njiitu réew mi dafa daal di euh, dindi décret boobu noonu nga xam ne. Euh, moom moo ñeel nag salaire u ancien ministre yi nga xam ne mi ngi doon dox ba nëggi ni euh, moom décision la boo xam ne euh, Macky Sall moom moo ko dal jëloon laata muy dem ginnaaw ba ñamale élection ba pare mu daal di yokk yooyule le salaire jële ko ci cent ci un million cinq cent yóbbu ko ci deux millions huit cent mille francs CFA loolee nag la jommaay daanaka waxoon na ko sax ca ba muy campagne. Mhm. Euh, nekkoon njiitu coalition Diomaye président ne loolu du dëgg du yoon ba mu see nag daal koy jëmmal dindi ko ba mu set euh, teg ko nële su ko defee nag mu wéyal liggéeyam. Jean-Luc Mélenchon en visite à Dakar. waaw loolu France 24 euh, point com moom moo koy daal di fësal. Euh, moom nag ci invitation Jean-Luc Mélenchon boobu Ousmane Sonko moom moo ci euh, nekk euh, Ousmane Sonko en tant que njiitu parti PASTEF moom moo invité njiitu France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon nee nañu nag ngan gi dina tàmbali tey jii. dina ko amal ci diiru ñeenti fan. fii ci mhm. Sénégal usman Sonko nag nee na Euh, invitation bu ni mel euh, dafay euh, firndeel rek relation boo xam ne am na seen diggante te liñ ci jublu aussi mooy fexe bëggoon ko suuxat kenn ku ne gis boppam ci li ñuy def ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo far ak Jean-Luc Mélenchon te fas ne bokk ci délégation bi nee nañu nag seen parti ki ko wax sax mooy Arnaud Le Gall moom mi nga xam ne député la ca France Insoumise nee na nag. Euh, ñoom seen partie ñoom ñoo ñoom ñoo nekk les seuls yoo xam ne depuis quatre ans dañu intéressé wu ci Pastef sekk ak ñoom ay relation yu am solo nee nañu nag ba ñu tabbee jomaay euh, fay invité woon nañ leen mais munu munuñu woon ñëw mais invitation bi nag date bi lañu ñu jàpp mm-hmm. ngir euh, mën fi ñëw su ko defee gën a euh, yaatal seen waxtaan ci diggante ñaari partie yooyu nee nañu nag moom mii di wax moom daanaka def na lu bëri ci gën a jegewaale ñaari parti yi muy euh, la France insoumise bu France ak PASTEF bu Sénégal. jërëjëf euh, Kajoor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xibaar yi am na solo euh, dañuy rebondir un peu par rapport ak yenn ci actualité yi accident bi am démb fële ca foire métti na lool. mu daal di def lu toll ci trois morts ñetti nitu ci ñàkk seen bakkan bus bu perte li nga xamante ni moo di contrôle. mu nekk lu doy doy waar yaakaar naa ni yii nag moom wax dëgg yàlla war naa jeex ci réew mi. Ah, xanaa dañuy waxaat rek Aïcha. parce que mm-hmm. fii nii bu yàggul rek invité nañ leen fi tata yi ñoom ñooy yokk yokk nañ seen paas yi déjà seen service amélio amul benn amélioration. accident yi ngay dégg temps yëpp da nga dégg ay tata bu yàggul rek bi amu bi bi këpp woon booru mm-hmm. EMG bi e aussi même chose donc ñoom mm-hmm. ñu ngi daw boo xoolee tata yi léegi seen état ñu ngi ñu dafa yàqu buy daw day weng day fees del yëpp déchet ba bunt yi sax du mën a tëju mm-hmm. muy daw di weng ba pare dañuy nekk di course man xaw ma lan ngay course comme comme car rapide c'est-à-dire que ba ñu leen fi indi c'était pour que ñu régler problème indiscipline boo xam ne mi ngi doon am. ci car rapide yi ak Ndiaga Ndiaye mais tey ñoom ñoom ñoo yées sax. ñoom ñoo yées. Mm. car rapide yi sax a leen tane. car rapide yi sax a leen tane maintenant nag xaw ma lan mooy doon décision bu radicale parce que il faut que ça s'arrête quand même. il faut que ça s'arrête waaw. Euh, xam nga accident yi moom dañuy wax wax a wax ba quoi parce que bon. Euh, indiscipline am na si si chauffeur yi man keroog bu ma jëlee benn oto jógee fii rek dem Ngor mais ay vingt heures mais chauffeur bi nu mu doon dawee si oto bi ba passager yëpp ñoom ñoo ko wax ñoo ko yuuxu mu mu doog mu doog a arrêté mais daf doon def ay slalom ci biir ki def nga ne loolu c'est normal euh, pleine nuit ngay def ay slalom si diggante oto yi au donc et puis ni mu nekkee noonu noonu la nekkee si chauffeur yu yu yu bëre man je ne suis pas euh, tous les chauffeurs mais am na chauffeur yoo xamante ne aussi tamit pour man y a responsabilité boo ah, xamante ne je sais pas ma xam la hmm. donc loolu lépp bokk si course yi <coughs> excusez-moi si ci course yi nga xamante ne dañ koy subir ci kaw tali parce que njëkkante bi bëri na ay njëkkante affaire affaire client la mooy njëkkante njëkkante client euh, pour man aussi tamit bon état Sénégal lu mu war a def si sens boobu moom mooy xam nga parc euh, euh, renouveler parc automobile automobile bi Sénégal wax nañu moom yàgg nañ ko fi wax mais mhm. oto yu bëri dafa màgget dëgg jéem a fexe benn je sais def benn partenariat benn entreprise boo xamante ne à l'étranger ñu andi ay oto yoo wax nga ko fi defaruñu oto defaruñu sax weñ ñu indi ay oto fii Sénégal ñu remplacer oto yu bëri bëgg parce que Sénégal euh, problème boo xamante ne man pour man nit yi duñ si wax la plupart moom mooy déficitu oto yi la plupart <coughs> excusez-moi <coughs> <coughs> c'est-à-dire oto yu bëre en fait dafa manqué ay oto yu bëre la preuve soo wàccee rek da gis nit yi surtout ñi nga xam ne dañuy dem banlieue bien que am na ay transport yu bees yu ñu defar mais ba léegi dañuy toog di xaar euh, nit yi di buuxante si oto yi tamit pour mu loolu c'est pas normal su fekkee nit yi dañuy buuxante si oto yi loolu moo mooy andi ay accident yu bëre mais su fekkee par oto boo xamante ne 40 places wala 30 places bon 30 yëpp wala. mu am la moitié mais pour man loolu kenn du njëkkante kenn et puis ku nekk dina dina doxe say soxla wala nga dem fi nga waroon a dem mhm. sans mu am yenn yenn buxante et puis chauffeur yi aussi tamit xam naa conscientisation wax nañ si ba sonn mais aussi il faut continuer de faire quoi mais c'est dommage xam nga des fois accident dina am mu jógee <coughs> indiscipliné chauffeur bi parce que dawalul ni mu war a dawal mais des fois accident dafay am mu nga xamante ni Euh, mën naa ne défaillance technique dafay am parce que tey bu fekkente ne ni frein bi moo am problème. et qu'il garde plus le contrôle de la voiture. mais ñi contrôlé là aussi mu bañ a war oto boobu. mais ñi am na ñoo xamante ne dañuy semé euh, contrôleur yi teg contrôleur technique yi au lieu que nga dem def visite technique et bon j'ai entendu je sais pas. ñoo xamante ne dañuy dem fu ñuy di contrôle technique mais duñ ko sax def pendant des années duñ fa jaar. mais mais mais mais loolu c'est pas normal. ñoo xamante ni dañuy def ay contrôle technique duñu bouger seen kër. waaw oh, loolu laa lay wax. kii bi rek nga yónnee mais loolu <laughs> mais loolu c'est pas <laughs> normal. doo gis doo bouger. Ah, affaire bi rek nga yónnee. <coughs> Ah, ñu lijjanti la ko yooyu yëpp mu ngi ci dëkk bi. donc je pense que y a des mesures yi nga xam wax dëgg yàlla. Euh, war nañ koo jël ngir rek mën a éradiquer accident yu bari yi nga xamante ni. am na fii euh, ci Sénégal ah doy na waar de kenn kenn mënul wax lépp immigration nañu waxati rek. Hmm. ah immigration irrégulière Kajoor xale yaa ngi dem ba léegi. lu duñ fi wax luñ fi waxuloon luñ fi wax luñ fi waxuloon que les gens nañu ñu xaaraat rek def temps d'observation xool parce que c'est ñi mujjee dem nii c'est des projets yu ñu ñu laloon mais maintenant euh, il fallait ñu ñu ñu yeggali ko malheureusement pour ñoom demuñu mais bon. xam nga dañuy wax ne état Sénégal boo foog mu def ay politique yoo xamante ni mais pour man politique boo mënta def tamit boo teewul jeunes yi parce que en fait c'est dur nga nga yeewu di jaaxaarloog la misère la pauvreté comprendre nga ça c'est très dur ça loolu moom moo lay jox euh, conscience que ça va jamais euh, euh, la situation ne va jamais décompter bu fekkee ne yow da nga am conscience boobu bon man avant-hier j'ai suivi un reportage bu nga xamante ni c'est récent on l'a fait avec des jeunes de Ngor ak euh, Saint-Louis mais ñoom dañu wax ni kur kur kur dañuy def ñu interroger ay parents yoo xamante ni mais dañuy encourager seen doom yi pour ñu dem am na benn parent boo xam ne lu mu wax ah, man su ma yoroon loo xam ne su ma yoroon 500 000 yoo xam ne euh, am naa ko dinaa ko jox sama doom mu dem mais loolu qu'est-ce que tu peux faire avec ça que tu peux qu'est-ce que avec ça donc comme lu ma la wax rek soo yeewoo di gis la misère xam nga pour man loolu c'est que tubaab yi que état Sénégal ñoo xam ñoo fi nekkoon ñoom ñoo jaay ay kay ñoo bradé ay licence parce que euh, ñoom non nekk nañ si position boo nga xamante ni ça les touche pas loolu c'est vrai mais beneen problème bi moom mooy nga yeewu amoo xëy amoo liggéey euh, jàppoo si dara bon pour nga gis ñoo xamante ne ñu ngi à l'étranger nga gis ñoo xamante ne ñu ngi à l'étranger voilà ñu ngi defar ay immeuble voilà ñu ngi am ay vie bu bu décent vie bu xamante ne bon ñu ngi amélioré voilà yow yooyu aussi tamit voilà sociologiquement ça te ça te quoi donc mais mais pour man à la base je sais pas man awma recette je ne sais pas ma xam parce que teg nañ fi façon politique bu rek européen nee nañ ñoom et puis xaalis bu nga xamante ne dañ koy jox euh, euh, démb rek waa Union européenne euh, financé nañu comment dire dëkk yu nga xamante ne ay Sierra Leone affaire yooyu tamit ils sont frappés par le truc jox leen ay financement mais tamit seen dirigeant ñoom ñoo détourné xaalis bi yóbbu ko seeni i kër te du mujj fenn jeunes yi di continuer di dee si si si géej gi et Afrique moom moo si moom moo si moom moo si pati voilà man man man lu ma lu ma lu ma lu ma si lu ma si junjure moom mooy bon les Africains sont condamnés quoi. Mm. pour l'éternité ah, <laughs> non mais c'est vrai je te parce que tout simplement mais comment tu peux. comment mais mais mais mais comment. Ah, mais comment attends mais comment tu peux. <laughs> mériter ça. Ah, mais comment mais comment tu comprends. Mm. que ak lu ñu mën def yëpp projet yu mën teg yëpp discours yu mën def yëpp jeunes yi ba léegi ils sont pas découragés. di di dem di dem au niveau de désespoir parce mal. waaw euh, touché guñu foofu. fan la mooy que xale yi amuñu xëy. mais loolu la. dëkk bi dafa metti mais c'est comme ça dund bi dafa cher. mais c'est comme ça pour nga am benn vie bu stable. dafay metti mais c'est comme ça. la mais c'est Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde. comprendre nga plus pauvre du monde. c'est-à-dire que fii yaa ngi fi yeewoo man maa ngi nii sol sama costume bu rafet ak sama cravate alors que j'ai rien tout. <laughs> non mais ñu ko waxante dëgg xam nga keneen ak keneen même fii soo amee liggéey sax ah ça va pas non mais franchement nagam nit ñi nga xamante ne ñoo am liggéey ça va pas mais waxutuma la koo xamante ne amul cent francs mais dëgg rek. mën ko lii ma dégg naa mais bon franchement lii du ma léegi moytu leen sol de. lii ah je te dis. damay bàyyi ba wàcc je te dis que. Euh, nit yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo yoo am liggéey jàpp si dara di fayeeku par weer ñoo ñoo yoru tous waxantuma laa ñi nga xamante ne jàppuñu si dara dañuy xëy toog di ataaya comme xam nga mais li ma lay wax nii bon cogiter un peu c'est vrai donc y a ça en fait loolu loolu yow à tu tu te dis pas que les Africains sont condamnés alors que am dëkk yoo xam si tu travailles pas au moins l'État t'aide baax na donc voilà am na ñoom waaw am dëkk yoo xam boo liggéeyul sax fin du mois da ngay am loo loo man dafa am lu ma lu ma lu ma ñàkk leer ci lii président Diomaye dafa daal di annuler décret yi nga xam Macky Sall jëloon na ko mooy décret yi nga xam dafa yokku salaire u ministres yi les anciens ministres mm-hmm. léegi li may laajte mooy ñan nekkoon ministre ca nguuru Macky Sall bu ñu ko nekkatul ñoom aussi chaque fin du mois dañuy fayee ko wala je le pense pas je pense pas mooy ñi ñi ñi mujj euh, je sais pas Pape Malick peut me peut si je me trompe mais ñi defe naa ñi mujj ñi mujj ci gouvernement bi ñoom la concerné te pa moom balaa mu doon dem aussi la leen doon fay un million cinq cent da koo yokk moom moom loolu la ñëw dindi loolu la dindi donc euh, ñi fi nekkoon dañ ko de euh, duñu duñu fayeku fayekuñ loolu parce que c'est sûr que il faut ba léegi ñu ngi fayeku normal non en fait euh, euh, euh fonction code fon euh, code euh, fonction publique statut fonction publique dafa wax ne doo jóge sa ay fonction lu dul sa remplaçant sa remplaçant moo ñëw comme mm-hmm. comprendre nga donc loolu mun nañ la par exemple gouvernement bi wàcc na mais sa remplaçant ñëwagul yow looy def moom mooy dangay ngay exécuter les affaires courantes moom mm-hmm. moom mooy dem du coup bon da ngay continuer bon voilà di di exécuter affaires yi rek comme ça donc loolu moom moo loolu moom moo demoon ba léegi nag euh, dafa am comme que décret moo lay fal décret moo lay folli léegi décret bi nga xamante ne moo lay folli nag moom moo ñëwaguloo ñoom ñu continuer di percevoir seen salaire bien que ay anciens tu peux tu peux présumer que ay anciens ministres lañ. parce que parce que am na ñeneen ministres yu leen remplacé mais ministres yu leen remplacé nekk guñu en fonction mais ñooñu ñu ngi doon percevoir seen salaire mais nag la question moom mooy que c'est ak moral yow. bon xëyoo yéen xëy xam nga ne yëkkatoo parce que ngay continuer di leen fay pour man faute bi du si ñoom faute bi état Sénégal war na am benn loi boo xamante parce que loolu vide juridique la que amul benn benn décret boo xam wala benn loi boo xam moo nekk ci porox ndoole nga xam dañu wax ne su fekkee ne dañ la wàcce nga xam ne am na décret boo xamante ni c'est yow wàcc nga mais amul beneen décret boo xamante ne moo moo ko notifié moo la que normalement en principe comme ça ko war a notifié bi moo lay folli loolu amagul mais moi mois yooyu donc il c'est-à-dire bu ñu la wàccee au moins nga toog six mois di fayee ko non c'est su fekkee décret moo lay fal décret moo lay folli c'est comme ça parce que. waaw que man la doon expliquer sànq loolu. même bu la xoolee. waaw foofu laay waxee même bu la xoolee ba décret bi génn. après yow en tant que ancien mais tu continues. de percevoir jusqu'à six ay indemnité mhm. ay indemnité yoo xamante ne donc defoon affaire nekk en cours loo xamante ne si salaire. bi la xamante ne. de mm. toute façon man lu ma xam moom mooy loo xamante ne si salaire bi mm. moom mooy moom mooy li nga xamante ne mooy sa payoor. Mhm. moom moo koy moom moo koy moom moo koy tëj tamit tamit c'est indigne que ministre boo xam ne wàcc na e ay salaire alo que ñuy wax ne dëkk bi amul liggéey te nit yi ñuy souffre <laughs> bon doy na waar daal. alors dañuy enchaîner merci beaucoup on enchaîne rapidement pour parler de l'actualité politique et économique de ce matin bu bàkk bi noppee rek ñu dikkaat ci plateau bi ànd ak Pape Malick